L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. alhamdulillahi rabbil alamin mbokki Nangi yi noo allah taala wa Tabarak. Diko ko Diko Bak. ko di ñaan borom bi jéggal ñu sunuy mu ñu sunuy نونغي جولي تي الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ديكو نيانال جام موم اكي صحابام التابعين له باحسان الى يوم الدين مبوك جولي سونو خطبتاي نيغي تنكو تي العبوديه لله سونو العبوديه mooy jaamu dëgg-dëgg jaamu ki ñu ko war a defal yàlla rek lay doon walla nga ni toroxlu wala suufeelu kooku yàlla rek lañ ko war a defal amul kenn ci mbindeef yi ku ñu war a jox xàq bu toll noonu di la toroxlul di la suufeelul di jël ay yaakaar di ko teg ci yow kooke waruñu ko koo defal ndax mbindeef la waaye borom bi nga xam ni mooy aji bind moom moo yeyoo ñu jox ko sunu bopp lépp ba dara waru caa def mbokk jullit yi li gën a rëy te gën ci nit te yàlla wërsëgal ko ko mooy mu nangul yàlla amul benn xéewal bu gën a rëy nangul yàlla taala wa tabarak waaye amul natt bu gën a rëy bañal yàlla nangul yàlla mooy sa lépp kaw ba suuf nga nangul ko yàlla ci di ko jaamu di ko toroxlul di ko ñaan di ko yaakaar di waat ci moom bëgg ko topp ko lépp nga jox ko yàlla tabaraka wa taala mu mel ni dangaa jël buum rek takk ko ci sa bakkan comme ni ñu def gëléem jox yàlla taala wa tabarak mu ommat fu ko neex jëme suñu waxee al ubudiya mbokk yi wa hiya al xuduu wa dull mooy toroxlul yàlla subhanahu wa taala ak topp bu ànd ak mbëggeel maanaam topp bu ànd ak mbëggeel jaamu bu ànd ak mbëggeel yàlla rek la nu ko war a defal taala wa tabarak mooy la ngay def sa xol da koy yëg sa xel da koy bëgg yellul ñeel benn mbindeef ñu toroxlul ko waaye yellul ñeel benn mbindeef ñu jaamu ko yellul ñeel benn mbindéef ñu yaakaar ko nit ñi tey nag lu bari dañoo jàpp ni jaamu xërëm rek lañ koy def ñaareel bi ñu jàpp ni xërëm mooy bant yi rek moom mooy yi ñu yat jàpp ni indo yi dañuy jaamu xërëm arab yi démb dañ daan jaamu xërëm jàpp lenn ci africain yi dañuy jaamu xërëm waaye ñun Sénégal jàppuñ ni jaamu xërëm nit mën na caa dugg nit mën naa dugg ci jaamu xërëm lan mooy loolu saa boo demee bay gam-gamle waxu mbindéef ak waxu yàlla ba ngay choisir li mbindeef bi di santaane bàyyi yàlla santaane boobu jaamu moo gën bon ndax ki ngay jaamu mbindeef la nit la te da koo jox place bu yelloowul ak moom da koo jox daraja bu yelloowul ak moom maanaam wàcce woo ko wàccuwaayu mbindeef loolu moo tax lenn ci nasaara bi ñu ne Isaa yàlla la borom bi taala wa tabarak da cee mer ñenn ñi bi ñu ne Maryam soxna yàlla la wala yàlla billah borom bi da cee mer waaye ñun bu ñu àggee ci nag ne <clears throat> man ñeme naa bàyyi lu ma yàlla sant ngir lu ma bindeef digal ah kooku mooy jaamu bi gën a grave te da ngay gis ni ñun loolu dañ ciy dugg da ngay toog nga dégg aw nit ñoo xamante ni dañuy wax ne carrément bu ma yàlla digalee diw digal ma jëfin digalal yàlla laay def loolu ñaata yoon nga koy déggoo ngay gis koo xamante ni. yàlla da koo digal ne ko jaamu ma ab mbindeef ñëw contourné jaamu boobu maanaam yàlla ne la jullil ma wooral ma ab nit ñëw ne la bul julli bul woor maa lay yóbbu àjjana nga yaakaar loolu ci moom wala moom waxu ko mais yow sa yaakaar da laa jox ni moom li mu la wax nga war def kon da nga jël mbir mi tourné ko loolu mbokk yi dara gënu koo doon jaamu xërëm lépp lu ñu bëgg te yàlla taxut mbëggeel googu yàqu na moo tax borom bi taala wa daf ñuy wan ci wàllu mbëggeel xool leen ñi gëm yàlla ni ñu bëgg yàlla ba yàlla di leen tàgg ne walladina amanu ashaddu xubban lillah gis nga ñi gëm yàlla seen bëgg bi ñu bëgg yàlla daf leen a jaral seen bakkan looloo taxoon sahabatul kiram bi yonent bi ne xare badr matuñu lu dul ñetti téeméer waaye ñëpp jóg papa ji xëccoog doom doom di xëccoog papa moo tax xare uhud yéefar yi ëpp jullit ñi lool jullit ñi taxaw seen kanam waaye gisuñu seen bëriwaay lan moo tax gisuñ seen bëriwaay yàlla mi ñuy jaamu moo leen sant yàlla ñu ñu bëgg moo leen sant loola moo tax ñeme nañoo jox seen bakkan yàlla tey boo gisee nit mu ñemee wax ni sama bakkan ñeme naa koo joxee diw te ko tax mu di ko wax wallahi nekkul dëgg ci moom kon sahaaba yi ni ñu meloon ci mbëggeel ñun noonu la ñu war a mel mbokk yi sahaaba yi àggoon nañ ci mbëggeel foo xamante ni wallahi bëgg yàlla di ko jaamu àggoon nañ ci foo xam ne jaral na leen ñu rey seen bàyyi jaral na len ñu ray seen yaay jaral na len ñu xëtt seen i ndigali waajur ndax ndigalal yàlla kenn du ko sàgganee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa taa'ata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn amul droit ci bindee fi ñu topp la ci mooy yàlla te loolu dañ koy gis ndax topp nit ci mooy yàlla mooy nit digal la lu la yàlla digalul nga jëfee la la yàlla digalul bàyyi la la yàlla digal kon topp nga mbindeef ci mooy yàlla taala wa tabarak su fekkee nag nit ki da koo toroxlul ci ñàkk pexe te fekk mbëggeel yóbbuwu la te dañu laa not loolu kenn du ko tuddee ibaada ndax tey ab policier mën na la tee monote la wala gendarme wala militaire wala service d'ordre wala nit ëpp la doole nga sukk ci wetam parce que dalaa ëpp doole loolu kenn du ko tuddee jaamu loolu dañu koy tuddee dañu laa not ku ñu not nag mënul ci boppam dara mbokk yi jaamu gi yàlla bëgg ñu jaamu ko loolu moo tax yàlla bind ñu taala wa tabarak moo borom bi ne binduma nit ak jinne ludul ñu jaamuma amul benn lu tax yàlla bind ludul ñu jaamu kon du muhammad moo tax yàlla bind bindee fi déedéet loolu ñu bari dañ ciy juum ya dañ ciy juum bu baax a baax boo waxee ñu jàpp ne loolu bëgg yonante bi la déedéet du bëgg yonante bi sala mais fenal yonante bi la ak waxal ko lu mu wax lu mu waxul ak waxal yàlla lu yàlla waxul yàlla nee na li tax ma bind leen yéen ak jinne wa ma xalaqtu jinna wal insa illa li yaabudu kon da nga naan li tax yàlla bindu ñu mooy ñu jaamu ko waaye ngal la mukk wax jooju siiw ñëpp di ko wax bu ko wax yow en tant que jullit bul wax ni Muhammad tax yàlla ñu loolu kenn du ko wax ndax yàlla jox la ci ordre jox la ci ndigal yonent bi jox la ci ordre jox la ci ndigal kon yonent bi taxul yàlla ñu yàlla li tax mu ñu mooy ñu jaamu ko dalil bi mooy وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يونت ييب دانيو نيوون yonent عباده بوبو nga xamanteni ni jaamu lañ ko war delo yàlla ubudiya bobu jaamu bu ànd ak supérno bu toroxlu bobu yonent yep mom lañu wote motax tax bu ñuy résumé dund yonent yàlla nu fam lu mom lañu genné bokku na ci li yonent yep ànd muy ben kaddu bu ñu bokk mooy ubudu llaha ma lakum min ilahin ghayru way way yéen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen borom bu dul yàlla kon nag jaamu dëgg-dëgg yàlla la ko war a defal te it nag jaamu boobu bu ñuy jaamu yàlla dañ koy booleeg moytu jaamu seytaane moytu jaamu aada moytu jaamu bakkan an ibudullaha bu taawut jaamu leen yàlla te bàyyi seytaane ak li ko nuru seytaane ak li ko mooy waxoon naa ko sànq ci première kàddu gi mooy da ngay jaamu yàlla jaamu yàlla nag balan koo def il faut nga weddi kenn mënul jaamu yàlla mu wér lu dul da ngaa weddi kon weddi mënta ñàkk weddi mënta ñàkk li fi nekkoon nit ñi jàpp ni moom la il faut nga weddi ko ba teggi ko doo ko teg yàlla subhanahu wa taala boo xoolee baat bi ñuy wax laa ilaha illa allah dàq la weddi la mooy laa ilaha amul benn borom bu ñuy jaamu waaw loolu du dàq loolu du weddi kon weddi ci diine ji la bokk weddi nag bi ñu lay wax mooy weddi lu bokkul ak li la yàlla sant léeg-léeg nga dégg ñu ne diw dafa weddi diw diw dafa bañ diw diw dafa nangam fekk weddi moom mooy wax dafa xamul ni weddi mooy asaasu suñu diine ndax yàlla yi fi nekkoon danga leen di weddi ñi ñu fi teg yaakaar leen te ñu indi leneen lu yàlla indiwul da leen di weddi que ça soit muy suñuy maam que ça soit muy suñuy baay que ça muy suñuy sëriñ suñuy sëriñ suñuy maam suñuy baay bis bu ñu indee lu yàlla indiwul dañu leen di teg fa leen tere saa boo ñu bëggee gëm loolu yàlla santaanewul bëgguñoo jox ndigal ci lu yàlla santaanewul par exemple su nit toogee fii ne bu leen julli yaakaar leen ma ku dee ma yóbbu la àjjana dañuy taxaw ne ko waxoo dëkk yàlla joxul kenn ndigal ci loolu bu leen julli déedéet amul kenn ku ci am ndigal du benn yonent bu yàlla yónni du benn malaaka mu jege yàlla du ndigal lu yàlla santaane du ndigal li yonent bi santaane kon beneen bindeef bu la ko indilee mbugal na la bëggal kon da nga koy wax ne carrément lii du dëgg soo ko nee lii du dëgg la mu tuddee ko weddi nu ko neex na ko tuddee waaye kenn du topp mbindeef ci mooy yàlla bul woor nga ne ko non damay woor ndax woor moo la jiitu moo la mag kon loolu dama koy def mbokk yi bu ñu waxee al ubudiyat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg hiya ismun jaami li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yardaah min al amal wal aqwal al zahira wal batina ak jaamu yàlla dëgg bu ñu koy wax mooy lépp lu yàlla bëgg te mu gërëm ko ci ay jëf kooku jaamu yàlla li yàlla bëgg te gërëm ko ci ay jëf moo xam ay kàddu la wala ay jëf la yu feeñ wala yu nëbb lu mel ni arkaanul iman ay ponki ngëm nit ki daf cay jaamoo yàlla ponki julli <coughs> xam lan mooy julli xam lan mooy woor moo tax yàlla subhaanahu wa taala ñi mu tuddee ñi rëy rëylu mooy ñu ko bañ a jaamu موتاخ من ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سوره غافر بروم بي نينا ني ري ري لو ولف جاموما ньоو ني دانيو دوغ جهنم تروخ تي والله دا غاي فك ني لوله لو بري لا سي بير بينديف كي تخاو نك ولا ني تخاو بغا جوبنتي لوله ньоو ني دانيو يغني نك لو نيك ميغي سين كانام اوبستاكل بو نيك داي تخاو سي سين كانام motax ñu yàlla yëndoon ci yonente yi ñaata jafe-jafe lañu am ñaata jafe-jafe amul yonente bu yàlla yëndé lul dul am na jafe-jafe ak xeetam ba ci muhammad sallallahu alayhi wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam nañ ci bu ko ray àggoon nañ ci bu ko duma àggoon nañ ci bu ko tëj taxo ba yàlla subhanahu wa taala ne ko génnal makka nga dem madina lolu mom mo sabab yonente bi gàddaay ci premier islam nga xamni julit jullit ñi amuñu doole amuñu pexe amuñu kàttan yàlla da leen waxoon nañu génn daw wiiru ci koo xamante ni du jullit ndax mu may leen doole yàlla mënu na leen a jox doole fa saasa ndax mooy borom doole ji waaye daf ñuy jàngal ni am na lu mën a nekk ak lu mënta nekk kon yàlla ni yonente bi sa gaa yi wax leen ñu gàddaay wax leen ñu génn fii ndax niñ leen di rayee niñ leen di duma metti na te feeg yàlla joxu leen digal sañoon nañ faa toog ba dee ndax xam nga ni bilal li ko dal suhayb li ko dal li dal sahaaba yi ci ay métit ammar ah li daal Sumayya ci métit loolu lépp yonent bi gis ko te munu ci dara dara dara dara dara ndeysaan yàlla ni yonent bi joxal digal say saxaaba ñu dem yonent bi ne saxaaba yi am na benn dëkk bu nekk ci yi ci Afrique am na buur bu fa nekk buur boobu kenn du tooñ kenn ci wetam moo tax nguur même bu gëmul yàlla bu maandoo rek yàlla da koy aar julli ñi dañoo ànd dem Habasha muy Éthiopie fa la ñu demoon ngir rawale seen diine yonent bi am na lu ko défendre lan moo tax yonent bi ci famille bi la bokk ak lu ñu ko bañ bañ xas saaga dóor ci la ñuy yem waaye mënuñ koo toroxal benn toroxal bi yonent bi def fa ñële dem mbokk yi kon daw wéeru ci kuloo mën a aar loolu islaam bañu ko mbokk yi jaamu yàlla bokk na ci moytu seytaane yàlla subhanahu wa taala tagg na jaamam yi ko sant lu mu leen taggee mooy inna ibadi laysa laka alayhim sultaan yàlla wax ne ibliis ne ko sama jaam ñi amoo ci ñoom benn pouvoir waaye amoo ci ñoom benn kàttan mbokk yi sahaaba yooyu dañoo dawoon ngir làq seen diine bi ñu demee nag ba am doole borom bi yabal ci ndigalam ñu del si waa bi ñu del si waatee yëf yi réglé wul defaat nañ beneen gàddaay demaat encore ngir lan ngir rawale seen diine mbokk yi kon bokk na ci walla ki dàq jaamu yàlla ci kaw suuf walla bu na neexee ci xeetu doomu aadama ki ci dàq jaamu yàlla mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a nangul mooy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lan la ko yàlla tuddee jaam kon yow nit ki mënoo ñàkk a nekk jaamu yàlla jaamu yàlla nag mooy nga nangul yàlla lépp waaye soo bëggee jaamu yàlla nangul ko lii am loo ko defeel jëlal ko lii am loo ko defeel dëgg-dëgg toroxlu googee ak jaamu googee dafa goo ko yow doomu aadama moo tax yow ndaw li jëlal sa bopp nga jox ko yàlla ña ko defoon démb gënuñ la ay nit lañ ña ko defoon ñoom am Ammar ibn Yaasir nga xam ni tey histoire emprunté na seeni mbir ba léegi ñu ngi koy tudd fa am Ammar ci 14 ans la toll di aar diineem donte ñu ngi koy duma waaye diineem jaral na ko lu nekk moo tax yàlla lu mu wax yonente bi subhaana alladi asra bi abdi fell ñeen na borom bi di ñaanalee ab jaamam xoola yonente bi li muy rëy rëy jaamu yàlla la tey boo bëggee jël benn mbindee fii ci suñu réew nga ni diw jaamu yàlla la sax mu am ñu ci bëgg a mer diw yàllaa ko bind mu am ñu ci bëgg a mer fekk ay fanatique lañ ay dof lañu parce que xamuñu amul ku rëy ci kaw su ba dab Muhammad te Muhammad li gën a rëy ci moom mooy jaamu yàlla bokk yi bokk na ci لوازم العبوده موي ورتي فوك جام جي تخ نيو واخ دغ دغ موي التوكل موي ويرو تي يالا ويرو تي يالا موي سي بغ بغ سي سوخلا نغا ديس كو يالا تا جاب ني يالا موي دوغال كينين مونو دوغال واي واي بول ويرو تي يالا بغ ويرو تي كينين يالا كوكو بولل مو ген انا اغنى شركاء عن الشرك yàlla nee na ñi ñuy ànd sociétaires yi man maa ci gën a doylu koo ma booleel ma bàyyi génn bis boo nee yàlla ak diw yàlla toog yàlla ak diw moo xam sëriñ bi la moo xam waliyu bi la moo xam yonent bi la loolu jullit war na ko sa wax ndax boo nee yàlla ak diw dafa mel ni yàlla amul kàttan ci li nga bëgg te diw ma ngay wax dee na suul nañ ko ay yaxam fënëf na xamoo ci nan la nekk kooku nan la la mën a dimbalee waa mbokk yi ku dee nu mu la mën a dimbalee kon bul jël mukk mukk mukk xalaatu dof di ko teg sa bopp ngal la waay bul wax ni yàlla ak diw loolu mënul nekk wallahi ladi laa ilaa gayru sama yaay ma jur dañ cee jotama ak moom dafa tàmmoon benn bokk su neexee yàlla neex diw mu ne ko yaay mu naa mu ne ko baal loolu loolu yàlla da koo tere yonent bi da koo tere xëccoo nañ ci ba ab diire mu doog ko bàyyi mbokk bul seetaan sa papa mu nekk ci loo xamante ne xam nga ni ni yonent bi da koo tere xam nga ne ni yàlla da koo tere nga bëgg a taxaw ni sam papa la dama koo jox cër naa ko seetaan déedéet joxoo ko cër sa papa boo ko joxee cër wala sa yaay nga jox ko cër muy def luy xam ni bokkaale la wala luy suufeel diineem wax ko ko donte dana mer su meree na mer ba xotti ko way jur la amal respect na waxin bi rafet waaye li mu ko war a nga ko xam ndax yaay doomam buggoo seetaan yowmal qiyaam sa yaay dina ci naqar yow bëggoo nga nekk ci naqar kon sa papa sa yaay da nga leen di conseillé ne ko yaay kenn du wax yaay booy kenn du wéeru ci mbindeef mbindeef du ñu wéeru ci moom al itimaad ragal kenn ko def mbindeef mbindeef bi nga xam ni mbindeef la comme yow dafa am ñaari ragal ragaluk biir ak ragaluk biti ragaluk biti mun na nekk maanaam mën nga ragal nit ndax la ëpp doole mun nga ragal nit ndax moo la mën mën nga ragal nit ndax moo la ëpp li nga bëgg te amoo ko waaye ragal boo xamante ni ragal bu fës la nga xam ni foo nekk yow doom kenn newu fa nga war a ragal kenn yàlla la war lool waaye làqu sa biir néeg am li góor doon doon nettali ndeysaan mu ne dafa nekk ci biir néegam am soxla te loolu mi ko réer lool nag am soxla bu të nee na mu gestu jàkkaarloog photo yi diw tàllal ko loxo nii ne ko ay diw yow laa nangam nangam nangam nangam nangam di wax di wax di wax nee na dafa ñaan loolu ba mu pare laata timis di jot aajoom faju ma ne ko yàlla fajul sa aajo de seytaane moo faj sa aajo parce que seytaane moo la bëgg a nuural moo la bëgg a nëppal boo jàppee ne photo bi nga jàkkaar loolu kooku nga waxal moo la may mu a ah, ma ne ki nga waxal fu mu nekk fan la ne fan la ne mun a teg parce que dafa am yoo xamante ne nit ki bu koy def <coughs> du ànd ak xelam gis nga bu àndut ak xelam ko benn dof rek mais da koy dimbale li nga koy dimbale nga xamal ko ne lii mënul nekk beneen bi bokk na ci nga yëg ni li nga bëgg kenn mënu ko ku dul yàlla waaye ngay dégg ay kilifa di wax boo ñëwee ba fii loo bëgg boo amee yaakaar dajalal fay yéene ñëwal ci armeel bi tuddal diw mais subhanallah jaamu xërëm bu biir boobu ñu koy def ci suñu réew ay kilifa di ko santaan loo soxla boo am loo mënti am ñëwal sellalal yéene duggal ci bàmmeelam ñaanal mais kii wax lii est-ce que nit la est-ce que nit la kooku dañ ko war ne hé kilifa bi xëñ bi tamit dangaa juum nag li nga wax nii kenn du ko wax mais lan moo tax dañuy jàpp ni kilifa la mais kilifa day juum kilifa bu juumee dañu koy corriger peut-être nañ koy corriger du bokk keneen ni ñu koy corriger mais nga toog di seetaan sa kilifa wax lu dul noonu nga ni ci ëllëg bu ñëwee lii du li mu wax nga ni dañoo dañu leen a saaga dañuy saaga mag ñi dañuy weddi mag ñi mais lii ku ko wax dañ lay weddi kenn du la bàyyi mu jàll dañu lay weddi ndax ki nga yaakaar ne ki nga wax ni bu ngeen ñëwee ba ci moom sukk leen ñaan leen seen aaju dana faju loolu mooy kaay leen ngeen jaamu xaram loolu islaam da koo teree borom bi taala wa tabaarak nee na wa man adallu mimman yad'u من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أضل لا يلا في لقوة يلا لنا أنا كان موغن غير أنا كان موغن الدف أنا كان موغن سانكو كي ñaan ku ريال yàlla koo xam ne dañ ne ñëwal ci bàmmeelam yéene waaye dëgg-dëgg ku dugg ci bàmmeel dañ koo sang dañ koo sang dañu koo defar nit ñuy defaree ni kooku mu bu mënoon dara kenn du ko sang sang ko xattaa yonent bi mënu dara ndax dañ koo sang sang ko sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp dañu koo sang sang bañ na ko ba bi muy avant muy gaañu wax na bu faatoo ñan ñoo koy sang biñ ko nee kan moo lay sang yonent mu ne sama waa kër ahla bayti ñoom ñoo ko sang ñoom ñoo ko sang sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax loolu tax na ñu mën a yaakaar yonent bi ñëw ci moom diis ko suñuy soxla déedéet yonent bi boo ñëwee ci bàmmeelam da nga koy ñaanal da nga koy assalaamu alayka ya rasulallah maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ajee boo umra lépp loolu ngay def assalaamu alayka ndax duaa la ndax ñaan ko la déedéet mais am na ñu réer ñu ko fay def lenn ci suufiya ak lenn ci chia maa tey dañuy def moo tax ñu jël ay policier teg leen fa ku bëgg a def tàllal loxo nii ñu ne la nuyool jàllal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bis boo defee loolu yàlla damay delloo sama ruugu ma fay la ma delloo la ko allahu akbar xool yàlla nee na ana kan moo gën a sànq ana kan moo gën a réer kuy ñaan keneen ku dul yàlla te yàlla ne wahum an duwaa'ihim gaafiluun li ngeen leen di ñaan ñu yëguñ ko sax xam nga dugg ci biir bàmmeel bu dee ma nga àjjana mi ñu koy ñaan yëgu ko ndax nekk na fu dàq fi ngay la ngay laaj bu dee ma nga safara tanu ko ndax kooku mën ngaa ñëw ci moom naan ko yow laa yaakaar te dégg diw yow laa yaakaar tey ak ëllëg sama lépp yow laa ko wékk mais loolu ak cànkute la cànkute boobu nag moo tax yonent yépp am problème ndax moom lañ doon dindi wallahi ki gën a taxaw di wax tawhid di wax yàlla nee na yow la ñuy gën a bant société baat na tukki féegi yaa ngi naan yàlla nee na di corriger chaque jour yaa ngi ami noonu waaye féegi yaa ngi bëgg a toog di masla chaque jour yaa ngi ami mbokk waaye ndax acte bi nit a koy def yàlla mooy defal bopp acte yàlla mooy defal bopp àttam moo tax yonent bi mu ñëwee li ko yàlla di ko wax maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusul deesut la wax mukk lu ñu waxut ñu la jiitu kon lu ñu la si wax jarul mu lay metti bu mu la contrainte continuer nga def lu mel noonu beneen bi bokk na ci yàlla nee na ñi ngeen di woo duñ leen wuyu ba yowmal qiyaama wa hum an duaihim gaafiluun wallahi kon mbokk ngal la waay bul dugg ci bàmmeel am fa yaakaar bul dem ci bàmmeel boo demee ci bàmmeel nga fekk ne dangaa ñaanal ka ca bàmmeel ndax xamoo ci lan la nekk nii nga nangoo di dem ci armeel yi ci daaru wala ci armeel yi ci dëkk ba nga dëkk di fa dem di ñaanal ñadee xam nga ni saa boo demee de li ngay wax sax nekkul lu ci wàcc ñëw di leen jàngal pour wallaahu ahad di leen defal nangam di leen ñaanal noonu nga ko defee boo demee ci bàmmeelu sëñ bi noonu nga ko war a ndax moo gën a ittewoo ñu ñaanal ko ndax li ko topp ci aw nit xamul mu toll te li ko topp garanti la ci bu fekkee la tax ñu topp ko moo ko wax bu fekkee la tax ñu topp ay nit ko ko waxal su boobaa am na ci responsabilité am kon su boobaa kii dafa laaj ñu ñaanal ko mbokk yi suñu mag ñi dañoo laaj ñu ñaanal leen ndax seen yool yi ñi ko yàq ci nit ñi dañoo bari seeni gaay lañ ko yàq am na ca loo xam ne seeni kàddu la lay seen kàddu seen responsabilité la la dul seen kàddu nekkul seen responsabilité ndax yowmal qiyaam ñëpp dañuy toroxu allahu ñëpp yawmal qiyaama amul sans exception ñëppay topp amul yawmal qiyaam laa wax ñëpp dañuy taxaw tàmbalee ko ci suñu maam Adama day sukk naan rabbi sallim rabbi sallim topp te yent yàlla nuux xam nga ni moo la gën gën ku la gën mënoo fay gam-gam ne kenn yont yàlla nuux yont yàlla day sukk sëgg rabbi sallim topp na yonent yàlla Moussa koy def Isa Ibrahim ñi gën a rëy ci yonent yi ami kàddu sukk la ñuy def tiit jaaxle kenn rek moo dul sukk yàllaa ko may daraja bu muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek mooy jóg su ko defee yàlla di ñu jàngal adduna te foofa ñoo ko yokk leen suñu bopp rek kenn du ñu ko waxal bu ñëpp taxawee yàlla mer mer gu mu mësuta mer asamaan ak suuf dara newu fi jant ak weer dara newu fi ku xool doo gis say loxo ñépp tiit jaaxle ñooy àndandoo kàddu na ah! borom bi de tey mer na mer bu mu mësta mer ba mu bindee asamaan ak suuf waa lan mooy pexe lan mooy pexe kenn dina nañ dem di sëriñ diw de moo ne woon mooy ramu gaal yi doo ko fa dégg billaahi doo ko dégg toppal 2STFM toppal rajo yi di wax la neex rek motax bu koor jotee ngeen jël seen waxkat yi dàq wax toog di wax di kàcc rek di teg billahi du dëkk kenn du toog yow mal xiyaam na nañ daw ci seen diw kenn du ko wax ñëppay ànd ci benn kàddu ah nañ leen daw jëm ci yonent yi waaw ndax seen diw yàlla yónni woon na ko moo tax kenn du ko tudd amu fa place dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fu ay général sukkee ay capitaine mënuñ fa am kàddu bu ngeen xamee armée fu ay général fukkee ay capitaine ak caporal amuñ fa kàddu waaw wala déet wala tontu leen fu général fukkee damm loosam caporal dina fa wax ah xel yi xalaat leen liñ leen tegal mënuñ ko liñ leen waxal amul du dëgg ñëpp naan nañ leen daw jëm ci yonent yi ñu ne fuñ dem nañ leen daw dem ci aadama xoole ki ñu njëkk a dem mooy bàyyi bindee fi dem mu naa ketteet leen ma ci man day mënuma fi dara nañ la ndaw dem ci Moussa Nuux Isa ba ñëw ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yàlla nee na uti leen diine afa gayra diinillahi yabghun mu ndax beneen diine bu dul yàlla ngeen di uti loolu ku ko def ndax sax mbokk yi diine nag mooy looy jaamoo yàlla di ca yaakaar tuyaaba rek mooy diine sénégalais ñoo xamul la mooy diine boo waxee yéen ñoo lii du diine lii nangam mais lépp looy jaamoo yàlla di ca yaakaar tuyaaba di ca yaakaar tedd loolu ak diine lay juddu moo tax borom bi ne qul a gayrallahi abgi rabban moo tax keneen ku dul yàlla laay ut muy sama borom loolu jamais du ma ko def mbokk yi bokk na ci jaamu yàlla toroxlu mooy nga xam yow yaa ñàkk yaa soxla te yàllaa ko yore yaa ayuha nnaas antumul fuqaraau ila allah yàlla nee na yéen ñëpp a yàlla wallahu huwa alganiy yàlla moo doylu hamid moo giijal ñun ñëpp a soxlawoo yàlla ñun ñëpp ku toog ci rajo bi nag ne soxla soo am ne la ko diw fajal bu làqatoo yàlla lay woo kon mbokk yi yàlla lañu ñu soxlaal yàlla mooy taw mooy ngelaw moo yore wërsëg yi moo yore dund bi moo yore dee bi yàlla nag li ñu ko bàyyee Sénégal mooy dee rek ku dee rek ñu ne cay yàlla yàlla ko rey mais lu dul loolu nangu nañ ko ci moom dee moom sañuñ koo nangu waaye lépp nangu na lu nekk am na ñu ñu ko jox doo dégg ku ñu fi jox kenn dee parce que dee dafa diis comme ni nga gisee ni weeru koor kenn nangu koo taf ci sa bopp bàyyee ko boppam rek noonu la nit ñi bàyyee borom bi taala wa taala mbokk yi dëgg-dëgg toroxlul yàlla ak ittewoo yàlla mooy sa lépp nga delloo ko pour sa jullite mbokk yi nekk lu dëgër mooy dangay ngay soxlawoo yàlla loolu moo tax ngay tàllal loxo di ñaan yàlla ndax am nga ay soxla loolu moo lay wan ni jaamu yàlla nga jamono boo ko defee nangu ne jaamu yàlla nga yàlla day kontaan ci yow boo gisee ñi ko dul def ñi dul ñaan yàlla te da ngay dégg lenn ci suuf yi da ngay dégg ñaan diw nee na man du ma ñaan yàlla ndax yàlla xam ne sama lépp loolu du diine du jaamu yàlla loolu ak rëy dong la yàlla dañu koy ñaan dañu koy yaakaar dañu koy bëgg beneen bi mbokk yi nanu xam ni bokk na ci toroxlul yàlla mooy ay waxi yàlla ak i jëfam ak i ndigalam ak i tereem bu sa bànneexu bakkan jiituloo ak sa bakkan lu mu bëgg-bëgg bu wuteeg li yàlla bëgg bàlli sa bakkan ndax kat bis dana ñëw yàlla subhanahu wa taala féete wala moo tax yonente bi ne la zaaqa taama al iman man radiya billahi rabban wa bi islaami diinan wa bi muhammadin nabiya mbokk jëlal sa dund yépp nga jox ko yàlla jubal xocc ni nga nekkee ndaw ndax kat xamal ni yàlla dañu koy jaamu wéeru ci moom faabudu wa tawakkal alayhi jaamul yàlla te wéeru ci moom beneen bi bokk na ci toroxlul yàlla jaamu ko mooy wërsëg bu ko sàkku ci mbindeef ndax yoru ko sàkku ko ci yàlla taala wa tabarak ngan la waay bul ni di way borom wërsëg bi yoru ko yàlla moom moo yore wërsëg bi borom bi ne na fabtagu inda allahi rizqa ut leen wërsëg ci yàlla yàllaa koy joxe kon mbokk yi jàppal ni li nga bëgg yàllaa ko mën moo tax boo tiitee boo gis ko yàlla yonte yàlla yaqub ba mu tiitee jaaxle lu wax innama asku bassi wa xuzni ila allah mbokk yi bokk na ci toroxlul yàlla te jaamu ko dëgg dëgg dëgg mooy nga jiital mbëggeel yàlla ci mbëggeel lépp cest à ni nga bëggee yàlla na la gënal lépp keneen ku indi beneen ndigal bu dul bu yàlla sànnil ba sam xam ne bu yàlla du tollee bu kenn kon na la yàlla gënal lépp bu la yàlla gënalee lépp gënal la ñëpp mooy danga nga nekk jullit bu ñu nangul beneen bi bokk na ci nga bàyyi rëy rëylu ci kanamu sa borom ndax mbindeef bu la nit ñi bëggee def ku rëy moo taxoon yonent bi bokk na ci li mu doon gën a bañ mooy tagg tagg mbokk yi tagg ñu bëri ñi daanu tagg lañ daane ci ay nitu diine ay kilifa xam nga taggkat bi dafa am lu mu yaakaar rek di ko wax toogal nit yaay waajo yaay waajo ba ñu ko yaay sunu yàlla mun a tekk dina ko wallahi maa ngi gis ci facebook bi koo xam ni dafa toog nii waa ji di tëb di dal naa ko yaay suñu borom yaay suñu yaakaar yaay suñu yàlla mu ni sëmm man waa kii léegi sëriñ la wala ab xërëm la sëriñ la wala xërëm yow yaa ngi toog ñu naan la yaay suñu yaakaar yaay suñu yàlla yaay doo taxaw ne ko tuub moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xussu turaaba ala afwaahil maddaahin ñiy tàggaate tibb leen suuf xëpp ko seen gémmiñ seytaane lañ iblis mooy wax ci seen làmmiñ te jamono buñ ko waxee nga ni tekk kenn waxul keneen dana ko waxaat keneen wax ko léegi nag mooy yaa ngi bëgg sóoru yàlla te yow xam nga ne mënoo sóoru yàlla balaan koo xam ne 22 heures jot yàlla dana la boole benn mbindeefam su ndaw ci kanamam ngay njëkk proxee ak noo toll benn xale bu jigéen bu am 16 ans wala 23 ans la doon nga futteeku ci kanamam gis nga yàlla subhanahu toujours daf ñuy wan ni dellu leen ci seen bopp ngeen xam ne du ngeen dara lu sa kaala rëy rëy lu sa garaam bu rëy rëy loo toll bu ñu ne yaay waaje guddi di nga ne soxna si yaay waaje dañ ma ko jiñ waaye yow kon mbindeef nga jàppal loolu ku la ni yàlla duma ko seytaane la ku bon la dara bëgg a jëme sama kula li ni yaay sunu yaakaar dala bëgg jëme safara ku la ni yaayal sunu lépp dala bëgg jëme safara bare la boo toogee na seytaane mën la di la ëf naan waaw moom dem sa maam la woon de nga toog ñu naan eh, yaay sunu yaakaar yaay nga nga ni sëmm ba sax dox mel ni benn benn robot loolu loolu ku ñor du ko def de ku ñor du ko def bu kenn wax nag waayam naa tudd beneen bi nañu bàyyi xel ni nit kenn du ko jox place yàlla gis nga lan moo tax jaam ni torox lu bindeef ba jox leen place yàlla bëggee leen ni ñu waroon a bëggee yàlla yaakaar leen ni ñu waroon a yaakaaree yàlla moo tax Umar ibn Xattaab doon wax ni mata staabadtumu nnaasa wa qad waladatum ummahatum axlaaq kañ ngeen jël nit ñi def leen jaam te ba ñuy judd ci seen i ay góor lañ ay góor lañ xam nga jaam bi gën a bon mooy bi reconnaître ak njaamam te nangu ko am na jaam boo xam ne dañ laa forcé jaay la doole mais jaamu ci wàllu diine yaa ñëw toroxlul nit ki bu ne hën nga lu mu wax nga yëkkati def na ba sax nag bu nee wax lu weddi li yàlla wax sax doo ko dindi loolu mbir mi nañ ko bàyyi bokk na ci mbokk yi euh, am yaakaar bu rafet ci sa borom te jàpp nag lu mu metti metti jaamu yàlla li nga ñaawle fexe koo defar jàppal ni nit ñi du ñoom ñooy àtt nit yàlla mooy àtt nit ñi mbooloo bëriwaay mbooloo tekkiwul dëgg dëgg mooy li yàlla wax ak li yonente wax sallallahu alayhi wa jàppal ni lu coow bëri bëri lu yuuxu bëri bëri bis dana ñëw ñun ñëpp dañu teew yàlla àtte kon yow ndaw li joxal sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wallahi ku jox yonent bi sa bopp topp ko insha allah doo am gàcce yowmal qiyaama loolu moom yéen jeunesse bi yépp maa ngi leen ci woo di leen ko waxal amuñu benn njiit bu gën a rëy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amuñu ko gis nga équipe bi mohammed ay capitaine bi de suma ko mënee wax pour ñu comprendre kon mbokk yi jeunesse bi ndaw ñi xale yi amu leen ku gën a rëy yonente bi sallallahu alayhi wa gor góorgóorlu leen ba lu ñu leen wax ci diine di leen ndax yonente bee ko jàngale ndax moo ko wax suñ la nee waaw santal yàlla suñ la nee déedéet taxawal posé waatal question kii li mu wax wala li ñu ko waxloo ku ko ko waxloo mais ngal la way bu tok mu ko ne sam papa ni la gisal mu jaar sama mam ni la gisal mu jaar inshallah ci khutba yi di ñëw dinañ ci ñëw bir bismillah manam top diine bay ndax diine la wala du diine allahumma ahdina fi man halayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت اللهم اقض حوائجنا وآمن خوفنا واشف مرضانا واغن فقراءنا بجودك وكرمك يا حي يا قيوم اللهم اورثنا جنة النعيم اللهم اورثنا فردوس الاعلى اللهم اورثنا فردوس الاعلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام قوموا الى صلاتكم يغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم